Modou si Paate si kenn du candidat ci biir <laughs> ku ku ku Pastef di euh, jàppale ku dul Ousmane Sonko. oui ci diggante bi ñu annoncé le 4. diggam ak Mame Mbaye Niang. waaw gars yi avocat mi dugal fa. exception d'inconstitutionnalité. avant avant d'en arriver à l'exception d'inconstitutionnalité dossier boobu mënul dem fenn dossier boobu mënuñ cee téye Ousmane Sonko. dossier boobu mooy dossier bi nga xamante ne moo gën a yomba kase ci dossier yu Ousmane ko am yëpp da nga fàtte ni mm-hmm. Ousmane Sonko dañ koo atte en première instance ñu daan ko deux mois moom Ousmane ko mu am trente jours pour fair appel mm. Mame Mbaye Niang am possibilité de faire appel sur l'intérêt civil procureur am euh, kii def appel Hmm. ci sanction pénale ñoom ñett ñëpp kon ku nekk ku nekk jox nañ la sa délai pour nga def appel. Hmm. ñoom ñaar ñu def appel délai wu Ousmane Sonko yeggagul. waaye cour d'appel taxawal audience bi. waaw violé nañ droit wu Ousmane Sonko parce que Ousmane Sonko moom délai pour def appel jeexagul léegi comme que ñoom jàpp nañ ne deux mois yi terew koo bokk rek du def appel. waaye alors que dafa waroon a def appel te dafa buggoon a def appel. loolu yombé te def na appel. Hmm. déggoo ma de. waaye def na appel Ousmane Sonko defoon na appel. 30 hmm. jours ya ba mu demee ba ca ceppaandaw. Hmm. def na appel. léegi moom fi euh, jugé nañ appel bi te moom délai d' appel di courir loolu violation du droit la conseil constitutionnel loolu rek rek rek kase na décision bi. waaw kase c' est une juridiction de droit c' est pas juridiction de fait. loolu rek nag kase na mbir bi mais. mu demaat euh, plus tard sur la formation euh, du tribunal enfin oui. de la cour oui. madame euh, la juge euh, Elisabeth oui. madame lu mu def connaître l'affaire en premier instant ñëwa a connaître l'affaire en appel loolu it motif la loolu rek rek rek rek motif la parce que juridiction de droit lañ nekk et on a violé le droit foofu loolu rek motif de cassation la beneen bi yow yaa ko wax léegi exception d'inconstitutionnalité. xam nga luy loolu. mooy mooy loi bi la bi ñu la bëgg a teg tëppoowul ak constitution pas Ousmane. Mm. instance bi ñuy daan Ousmane Sonko. c'était sur le fondement de l'article euh, 258. mooy bu diffamation bu diffamation bi waay. ñu koy daan en appel yemoon ci 258 euh, bi bi lañ dem. Hmm. parce que dañ ne. membre du gouvernement moom boo ko diffamé six mois la mbir mi di tàmbalee. mais disposition boobu noonu mais disposition boobu dafa contraire ak constitution diffamation c'est une infraction de droit commun hmm. mais la naka la bu ñu diffamé Pape Ousmane Cissé hmm. ak bu ñu diffamé Pape Malick Ndour peine yi bokkul te ñoom ñaar ñëpp ñuy sénégalais article premier de la constitution ne les sénégalais ñëpp tolloo droit ñëpp tolloo ak ñëpp a tolloo yelef mais ci biir benn infraction yow bu la ko defee ak bu ko defee Pape Malick Ndour sanction yi bokkul te pourtant même infraction bi lañ teg ci seen kaw loolu euh, euh, ce n'est pas une rupture d'égalité hmm. xoolal ma li ma la wax rek sénégalais nga Pape Malick sénégalais la. waaye ñu jël même tuuma yi teg ko seen kaw. des allégations ou imputations qui visent à porter atteinte à votre honneur ou à votre considération man maa ko def comme que man def laa exemple la rek <laughs> man def kat laa maa ko def léegi ma def ci yéen ñaar les mêmes infractions yow liñ may li li li ñuy daan ci yow kenn du ko daan ci kële daanu kële mooy gën a sévère pourquoi te ñaari sénégalais la article premier de la constitution ne ñu les sénégalais yëpp ñoom ñoo tolloo kon article boobu violé nag euh, le principe de la légalité constitutionnelle première chose deuxièmement membre du gouvernement constitution moom moo may bépp sénégalais mu opposé wu à politique du gouvernement dem sax ba opposition am statut ci biir constitution bi waa naka la ñu may la nga opposé wu ci gouvernement bi te yow amoo sañ-sañ di wax ci ñoom wala di def ci ñoom ba loolu noonu war a mën a jur euh, infraction bu ñuy daan aussi sévèrement ba doo mën a bokk ci élection cette loi cette disposition est anticonstitutionnelle léegi bu ñu defee exception d'inconstitutionnalité bi le 4 le 4 cour suprême mënul statuer lu tax parce que moom du moom mooy juger l'exception d'inconstitutionnalité koo koy conseil constitutionnel moo tax kon cour suprême da ko jàllax da ko koy jàllax conseil constitutionnel am na 30 jour pour taxaw ci exception d'inconstitutionnalité diggante 30 jours boobu la 20 validé nañ ko candidature ko bu yàgg kon loo bu wax ni yoon bi dafa leer pour lu jëm ci Ousmane Sonko boulevard de la République ça amène au palais de la République lañ tudd ci tëjël amatul benn dossier mosul am sax benn dossier judiciaire bu compromettroon sa candidature tey dafa gën a leer tey la gën a leerati. maanaam ci yëpp buñ ko jëlee conseil constitutionnel amul lenn lu mu mën a wax lu may ni. dara parce que le bi nee naa la cour suprême du ci wax. cour suprême buñ ko indilee dossier yi mu gis exception d'inconstitutionnalité dana ah lii nag du sama mbir lii mbiru conseil constitutionnel la. moom amoon na nag. mu ah amoon na. fan. ci baat denk ah ci baat bi gis naa fu ñu ah. bind euh, ah. xaw ma lan déclaré irrecevable mais bii ce n'est pas irrecevable parce que la disposition euh, en elle-même viole la constitution moom mooy li ma la expliquer léegi nii te conseil constitutionnel l'exception d'inconstitutionnalité li tax amul sens mm. au Sénégal confirmé par mon professeur Isaac Yankoba Ndiaye Jacob <laughs> képp kuy droit des obligations Sénégal xam na ko bu doon droit religion la moom c'est un ñaari yoon sax Isaac la tudd Yankoba Isaac Jankoba Ndiaye ñu naan ko Jacob Jacob nee na l' exception d' inconstitutionnalité n'a pas de sens au Sénégal d' plus que bu demee conseil constitutionnel conseil constitutionnel na ko oui Ousmane Sonko ñu lay bëgg a appliquer c' est anticonstitutionnel kenn du la ko appliquer effectivement kenn du ko ko appliquer. Hmm. mais la loi reste sur le dispositif bu doon en France loi bi dañ koy tëbal. daal dafa obsolète. non dañ naan bu conseil constitutionnel ne loi bi c' est rek loi bi fa lay jaaree disparaître. Hmm. mais au Sénégal la loi donte duñ ko appliquer ki ñu koy appliquer loolu la mais li ma bëgg a wax rek ça c'était une parenthèse ouais, ouais. mais ce que je veux dire rek mooy le 4 le conseil euh, le, la cour suprême ne peut statuer su ko defee candidature bi valide bu yàgg léegi nag imaginel <laughs> looloo nar a neex candidature bi valide après ñu ne wëy loi bi constitu ce n'est pas anticonstitutionnel ñu delluwaat cour suprême cour suprême ne wëy je confirme les six boobu fekk na le coup est déjà parti oui mënatuñ la décision ne rétroagit pas mooy jeex na Ousmane jàll na jàll na Adada Agassi Ousmane Sonko jàll na day jàll gisuma lu ko teree jàll lu dul yàlla mënul compromettre sa candidature bañ koy wax boobu ba léegi siisu nañ ci fànn bu nekk. Hmm. jafanduku nañ fu ne. biñ gën a jafandu sax mooy contimence ba dañ ko jafandu contumace yéeg ak ñoom di yéeg ak ñoom ba jékki-jékki contumace ba dagg ñu xalangu ne tépp li ci suuf jeex na kan Ousmane Sonko day bokk mënul koo teree bokk droit moom moo ko boole. leneen lu ci waay def jaay doole la. loolu la nañ dem rek jàkkaarloo ak moom lan doon bañ boobu ba léegi fi mu toll nii moo sës. mooy dana dana bokk. mooy da ngay jàkkaarloo moom sur le plan des idées. di nga jàkkaarloo moom sur le plan programmatique. fii nii. Hmm. amul yooyu de. maanaam ay woy euh, Ousmane Sonko maamam nii maamam ba yor yaay loolu amatu fi da ngay moom ci ay idée loolu lañ doon daw depuis deux mille dix-neuf ba léegi jeex na nag yegg nañ ci. Ah, ah, amatu Ba n'a pas de choix. na andi programme am rek teg na andi PSE am rek teg. oui laata te Ousmane Sonko bul fàtte ne ba mu génne woon ca deux mille dix neuf ak bii bokkut. Hmm. ah non beneen livre yi ñëw. beneen solution ñëw. mu ngi ci yeneen yi solution kay. ci officine bu baax du du yàgg dara. Hmm. est-ce du mooy le 30 sax. justement le <laughs> ce que est